xanaa boobu mooy 20 millions baa ngi noonu amaa ngi noonu xale Pikin jóg noonu mag yi sotti na ko biteel bi day saan baaxub jege si na arbitre bi avertir na Balla Diouf ñoom ñaar bi ngi wax ak ñoom sifflet bee leen boole mu ne saaku yi fekkiwul kenn ku fa dem yaa fa yóbbu sa bopp mu ne ci ginnaaw kenn du dóor waaw kookoy Babacar loolu la ñu bëre ko ci jàmm incha allah ku mën arbitre la nag waaw Babacar daanaan la pare noonu arbitre bi sifflet Ama Baldé Balla Diouf mbokk yi ñu ngi fii tey la samedi. waaw ah. juróom-ñetti fan ci weeru janvier. et puis atum 2011. ñaari pied droit la Ama Baldé ak Balla Diouf. ñaari pied droit la Birahim Ndiaye wax. ñu ngi dox di dem. ñu ngi dox di dem. ñu ngi dox di dem. ku ci yàkkamti yàq sa làmb ci ñoom ñaar. Ama Balla dem na bay dugg duggul dafa dóor. Balla dem na bay dugg duggul dafa dóor. ama Balla saa wu mel ni luy dugg dugul ama jël na tànk ba Balla bañ ama takk na ko Balla bañ na ama na ko Balla bañ na ah, su ko ndom ah, Balla bañ na yëkkati na ko door ci suuf mu bañ door na ko ci suuf ah, bëre doole bëre doole ama Balde daan na ko ama la bati le fils de Fallay Balde